jërëjëf mbokk yi maa ngi lay ñu ngi lay jaale tiis bi nga xamante ne dal na ci monde làmb mu nekk génn àdduna Moussa Dioum yan témoignage nga ñu mën a defal ci Moussa Dioum. Euh, Baye jiile maa ngi jaale képp koo xam ne kullukum ci làmb rek nga yëngu maa ngi lay jaale Moussa di leen jaale aussi yéen li ñu bokk ndax aussi boobu ba léegi yéen a ngi fi muy waa wasaare làmb. muy site internet boo xam ne ñu ngi fi yéen ñëpp yéen ci waslu àq bëgg ay ñaar yi rafet yoo xam ne génne na ci jëmm ji nga xam ne moo jiitu muy ay seede euh, man nag bu ma la waxee ban 1900 laa ko xam te yaakaar naa yow mi jiite war nga cee mos dara ci weewu nag ndax ba may ànd ak Garga Mbossé Moussa ngi jóge parcelle fii di ñëw ci Garga heure bu garga amee combat Moussa fa la yendu ba ni garga départ Moussa doo génn ci kër gi boobu maa ngi ànd ak garga muy sama wóolëre moom tamit te xam naa fa mu nekk ca Amérique naqar jàpp na bu metti sax ndax xam naa déggante gi muy déggante ak Moussa ba combat bi ñuy préparé moom Garga Mbossé ak Moussa Ndoye man ak Moussa Diom ñi ko préparé ci lañ bokk ca boori fële ca kaw foofu noonu waa ca kaw ca kaw bu tudd tur ca kaw waaw boobu maay taal sa ñëw jël si Moussa ci mbaar suñu Moutala ma woo Garga ñu génn Malibu dem ca kaw waaw kon donc suñu wëllëre la Moussa di baax Moussa di ko am kóllëre Moussa di ko am ngor maanaam missionnaire la moom bu waroon a dox dara ci jamono ànd ak jamono ji dëddu dem lum la wax du dem lum la wax ci àdduna du deñ moom Moussa. combat bu mag bu am bu ne diw mooy daan bu ngoone da la na la waxoon naa la kon am na lu ko yàlla may moo tax mosoo dégg ci Moussa muy tooñ mosoo coo dégg ñu ne Moussa ngi xuloo mosoo dégg ñu ne Moussa ngi xuloo ak manager yére bii ma sol nii sanse bii ma sol nii Moussa juma ma ko jox yaa ngi may dégg déggoo ma de yére ba ma ko jox man leer naa ne solo gu ko déggoo ma ji nii licence am ren defar naa ko defar naa frappe defar naa simple defar naa olympique parce que dañ doon xalaat jeux olympiques yi deux mille vingt six yii di ñëw mu jàppale xale yi ci xeetu xam-xam ca arène nationale ndax maa ko doon jël si fii war ko yóbbu far xam gis ngeen yàlla def defare ko ba mu apt bi ma ko indee léegi matu une semaine ba may ñëw keroog man ak mën lay mi nga xam ne mooy doomu ndayam fii lañ tase keroog ba vingt trois heures ci guddi donc li nit ñi wax rek mooy ku baax la ku amuk diine la ku amuk lislaam la te li ma gën a neex ci musaa ba tax ma gën koo jàpp man bëriwul li may fàmb mooy du def dara lu maam lees yëgul bu fa bàyyi jiili waree ñëw dana la woon la maam bàyyi jiili bëgg na fee ñëw ba xam ma jël ko wala bañ koo jël ma ne ko jël ko te nga waxee nii toogee nii toogee nii man tamit bu site internet ñëwee sama kër ma war a waxtaan lu yaatu ci làmb dana mën a maam moytu tu yi sërëxal la maam yow waroo nekk ku ñuy sërëxal nangam ji nangam ji seq naa ko moom xam muy ku baax a baax a baax muy ku baax billaay walaay taala ku baax bi ma koy woo ak diggante bi gaañoo matu waxtu billaay walaay taala ndax du toog journée ba journée entière jeex te néew ma maam maam moom ma dama dootu jaar ci sax ci maam lees yi maam rek lay wax vidéo yi nekk sama téléphone tey bu ma la ko wanoon tey jii li nga jéggi dayoo maanaam nga nga nga xam ne kii missionnaire bu waroon dox ci jamono rek suñu borom yónni ko mu war a delluwaat. kon daa mel ni daa ngeen gisoo ci lu bari. la. maanaam maanaam maanaam man magam laa mu nekk sama rak. maanaam déggul ma man sama doom bi mu accidenté bi Sénégal di ñëw mooy Lions yi jour bi ñu jëlee Coupe d'Afrique le lendemain di ñëw lundi ba ñuy ñëw sama doom dafa accidenté ci moto Moussa Dioum muy ñëw na fa moog bato Sénégal mii ngay dégg yaa ngi dégg ak ngeer fa lañ toog ba vingt trois heures ci guddi loolu doye ko mu ne kii sama fils la sa doom sama doom la xëyaat la laam demee ñëwaat fa donc romb nañ wàllu coach ak ay entraîneur ak yooyu maanaam mag ak rakk la muy ku baax ku oyof feebaram bi lan nga ci jàngee ak nan nga nan la état bi tolloon génn àdduna. Euh, feebar bi ci tànk bi la commencé. Mm. ndax Moussa ko ko xam xam ne ay taab da ko yoboon. mais taa bi daawul génn ci tànk bi da génn ci côté poxataan yi wala léegi ci foo xam rek foofu fi taab war a am lay génn mais buñ demee benn instant taab bi dafa wàcc ci tànk bi baaraamu dënk bu tànk ndeyjoor bi bu mag bi moom la commencé di ko ronger ndànk-ndànk ma ne ko bi ma ko gisee man carrément wax naa leen ko bugguma ci jaaraat mais dama ne ko na toog këram muy dem hôpital ma ab di ko faj di ñëwaat mais gis naa ne ak li nekkoon ci yaram bi comme comme comme coono ak feebar yaa ngi dégg tànk bi commencé rongé wu ba mu sonn bi mu sonn lañ ko dogg a yóbbu IASU yaa ngi dégg bi ñu yóbbu bi pourtant Moussa ba ni mu feebaree ba mu demee IASU médecin ya fa nekk ma nga leen di mbalak xam nga Moussa fu mu toog kenn du ñett mm. ay supp lañ ak nangam nangam docteur di ko tooñ naan ko yaa mais bëgg na ñëpp nekk ci jàmm bëgg ñëpp défature ak lu ko feebar bi gañe gañe gañe gañe moom mi ngi doon def le maximum possible pour nit ñi bëgg li ma wax daal Baye Djily moo ci ne mooy Moussa ku baax la missionnaire bu waroon dox ci àdduna la suñu boroom soxla na ko delluwaat na métit gi ma ci am ak naqar gi ma ci am mooy ñàkk bàyyi bant ñàkk a bàyyi soxna peut-être moo ma naqari man moo ma afat parce war na fa bàyyi loo xam ne man mii en personne war naa fi ñëw di ko xool nag dénk na ma koo xam ne danaa fi ñëw di ko xool muy Baye Laat rekkam ndax Baye xam na ni ma mel ak Moussa moom muy fanaanoog moom guddi fanaanoog moom hôpital yendoog moom hôpital ba ni mu wàcce kon xam na ni ma mel ak Moussa donc nag Moussa di ku baax Moussa di ko humble Moussa di ko am diine Moussa lu mu la wax ci àdduna loolu du deñ ngénte bu amee fii ci koñ bi da koy tànt dana la feccal dana def ñëpp divertiru ba ñëpp bëgg mu doog a ñibbi kon donc nit ku baax loolu doog la am ñu